xuppekat ci ñi war a ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla mu xupp leen ci dig leen sawara wa basiir ak béglekat ñi nga xam ne ñoo topp seen borom mu bégal leen ci dem aljanna yonent yépp alayhi salaatu wasalaam loolu lañu bachir ak nazir bashir mooy koo xam ne day bégal ñi nga xam ne ñoo topp nazir mooy ki nga xam ne mooy xupp ñi nga xam ne toppuñu li xawmin ci nit ñoo xam ne yuminuuna gëm nañu seen boroom tabaraka wa taala li qawmin bi ma jituhum bihi min indillah huwa allazi yàllaay ki nga xam ne xalaqakum moo leen bind yéen nit ñi min nafsin waaxida ci benn bakkan doomu aadama yépp suñu boroom tabaraka wa taala mi ngi leen bind min nafsin waaxida ci benn bakkan muy bakkanu aadama alayhi salaam doomu aadama yépp kon ñoo bokk jenn maam aadamaay suñu maam ñun ñépp ñoo bokk benn maam aadama mooy suñu maam ñun ñépp ñoo bokk benn noon iblis mooy suñu noon ñun ñépp ñoo bokk benn yàlla tabaraka wa taala mooy suñu yàlla ñun ñépp ñoo bokk benn yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu yonent ñun ñépp ñoo bokk benn alquran kitaabullaahi mooy suñu alquran ñun ñëpp ñoo bokk nu ñu fi ñëwee mooy diw dey judd na démb ñun ñëpp ñoo bokk nu ñu fi jógee mooy diw dey faatu na tey ila axiri ila axiri moo tax ku génn àdduna it koo mën di doon ñooy tolloo rakk yu ñu lay jullee xalaqakum min nafsin waahida ñooy niroole bàmmeel xanaa ginnaaw ko ngeen cay tabax ak di ci def yooyu waaye soo leen wu moom benn la càngaay li mooy tolloo sangeen wa benn la jullee ga benn la tabaarkàlla ni ñuy def ñun ñepp ñoo ko bokkale ndax ñoo bokk menn maam lañuy ñuy gënantee kay mooy bu ñu dekkee yomal xiyaamati ñett nanguloon seen borom tabaaraka wa taala amaa adduna gi nag moom du ñu fi gënante ndax kenn ku nekk luñ la fi jox dañ la ko abal boo faatoo ñu nangu ko yàlla ñu bind kon min nafsin waahida wa jaala minha mu def ca bakkan ba zawjaha tóllanteem mu bind ca bakkan ba zawjaha tollanteem te moo di xawa li yaskuna ngir mu mën a dale li yatma inna ilayha ngir mu mën a dale ilayha ca bàkkan boobee li yaskuna ilayha yàlla dafa bindal kon kooku nga xam ne mooy nit keneen ku ko tollanti lu tax mu ne li na ilayha ngir mu mën caa loolu ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka wa taala la bokk mooy sakan bi nga xam ne doomu aadama bu dencee soxna ci moom la koy amee loolu ci kéemtaani suñu borom bi tabaraka wa taala waaye nag mbokk yi li yaskuna ilayha ilaa araf la boo xam ne day jëm moo di soxna si nga xam ne moom ngay def sakan di am ak dal ci moom liyat ma yatma inna ilayha moo di fi nga ko bàyyi da ngay ñëw fekkaat ko fi waaye bu fekkee ne fi nga ko bàyyi dangay ñëw toog mu ñëw moom fekk la fi booba arafu ilayha du am ilayha su dee am mooy fi nga ko bàyyi da ngay ñëw fekkaat ko fi ilay ilay ilayhi wala ilayha mooy da nga jëm ca moom arab su ne minha daf caa jóge waaye waxul li taskunu li ne minha daf na liyaskuna ilayha moo tax soxna si nga xam ne mooy am ak sakan nga xam ne liyaskuna ilayha mooy dañ koy yar mu yaru yarub diine yiw ba pare fi nga ko bàyyi woon boo ñëwee foofu nga koy fekk ndax jigéen yi nga xam ne mooy valeur am mooy mu toog ku ñëw fekk ko fi mu toog tabarkal soxna soosu falamma taxashaaha ba nga xamee ne borom kër ba na ak moom falamma taxashaaha ba nga xam ne boroom kër ba jote na ak moom xamalat ëmb na xamlan xafiifan ëmb bu oyof ñu koy tuddee mbémeur ëmb bu oyof lu tax ëmb bu oyof ndax jigéen su fekkoon dafay ëmb ëmb bi jëkki jékki rek xëy diis su boobaa dafay def ci moom is eh, eh, isaaj te isaaj su ko ko defee maanaam isaaj mooy eh, li science njëkkoon a wax ci nit daf ñu woon nit day doon nit ko ndaw ci biiru yaayam di màgg ba mu yàgg mu génn ci biti loolu loolu la science daan wax ndeysaan ba mu yàgg bi alxuraan ñëwee wax ni mel ñu tàmbali di gëstu nag ba gis nañ li alxuraan wax noonu la ñu tàmbali di wax loolu di ko toppandoo moom doomu bu jigéen fii yàlla yi wax fa lamma taxashaaha xamalat xamlan xafiifa fa marrat bihi mu romb ko fa marrat bihi ay bi istamarrat bihi ila xiini milaadihi maanaam mu romb li nga xam ne mooy diir bi mu war a am pour am doom doomu ju jigéen bu dee seetlu lii mooy doon ki nga xam ne moo gën a war a ragal yàlla subhanahu wa ci kaw suuf ndax jigéen ak usine la boo xam ne isaa taxashaaha a rajul xamalat xamlan xafiifa moo di moom usine la dafa am benn matière boo xam ne moom la ñuy def ci doom rek ci moom rek matière boobu mu am ci doom moo tax góor gi nga xam ne moom moo war a nekk bàyyi doomam jooju ñu war koo tànn moom moomi at góor gi nga xam ne jigéen jooja war a nekk yaay doomam da ko war a tànn ndax loolu mooy li alxuraan jàngale waaye it nag jigéen xoolal doom joo xam ne day ne ci sa biir bi xamaguloo nu mu mel xamaguloo nu mu toll nga jékki-jékki ba mu yàgg rek li nga daan def weeru jot nga fóot nga jékki-jékki sam fóot daal di taxaw nga daal di yëg ne yow kat am na lu xew nga toog ba mu yàgg nga gis ngay tàmbalee wàccu sa yaram wi tàmbalee diis ngay tàmbalee bëgg ay nelaw nangam nangam ba mu jàgg nga gis nag sa biir bi di jóg ndànk di jëm kaw di jóg ndànk di jëm kaw ba mu jàgg nag léegi mu diis gann ba doo sawaratee dox léeg-léeg boo doxantoo tuuti ñaqtooy xëpp daal di sonn loola ne ci yow nga gis nit ñi tabarkalla ñoom ñëpp naan kii dey bu ko yàlla maye jàmm ñëpp jàpp ne yow sa bakkan mi ngi ci xottu nag yàlla ne na falamma asqalat ba ba ëmb ba diisee daawa jëkkër ji ak jabar ji ñoom ñépp ñu ñaan yàlla rabbahuma yàlla mi nga xam ne mooy seen borom ëmb moom su diisee jigéen xelam dellu ci yàlla ëmb su diisee jëkkër xelam dellu ci yàlla ñoom ñaar ñépp seen xel daal dellu ci yàlla rabbahuma ki nga xam ne mooy seen borom ñu daal di ñaan yàlla ne ko la in aataytana boo ñu indilee suñu doom ji saalihan mu nekk doom ju mat saalihan mu nekk doom ji mat la na ko nan ñun ñaar ñii daañu bokk mina shaakir na ci ñi lay sant la in razaqtana waladan saalihan sawiyal xilqa la nashkurannaka daañu la sant loolu la nga gis ah, ñaari ñaari wayjur di ko wax ci seen doom ji nga xam ne moom la yaay jur tabarkàlla ah yàlla nem ngoog bàyyi ngóor si ci biiru yaay mu am ca diir léeg-léeg mu mat juróom-ñeenti weer léeg-léeg mu yées ko tuuti léeg-léeg mu ëpp ko tuuti léeg-léeg mu ñëw nekk góor léeg-léeg mu ñëw nekk jigéen léeg-léeg mu ñëw nekk ñaari doom fa lamma aataahuma ba leen doom ji dikkalee ba mu juddoo saalihan nekk ku mat lan ñaanoon yàlla defal leen ko dañu ne woon dañuy ñaan seen doom ji juddu nekk saalixan mët sëkk ndax ñu sant yàlla ba mu leen dikkalee mët sëkk yàlla moom def na lañu ko ñaanoon ñoom luñ def jaala ñu def ñu def yàlla wala boog doom ja shurakaa di way bokkaale fi ma aataahuma ca la leen yàlla jox subhanahu wa taala maanaam fa lamma jacala haulaai alawlaad wa zurriya shurakaa ma wal asnaam ñu ànd ak doom ya di jaamu ji tabarkàlla leneen loo xam ne du yàlla loolu nag mu fassiroon yi wax nañ ci ay wax yu bare bare bare yoo xam ne daanaka yooyu euh, yaatuwaay beeg guddaay baag guddal baag werante yooyu tax na moom ñun buñ ci jaaree foofu rek mu daal di doy sëkk dangay ngay gisat nag doom joo xam ne ji juróom-ñeenti weer laa am ci biiru yaayam kenn seq ko suñu borom tabaraka wa taala naka mu judd rek nga daal di gis ñu daan ne ah nañ ko daal di wutali béjjën sàngam ñu wutal ko takk wut nangam takk wut nangam takk suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi ko daal di tàmbalee xañ jaamam boobu yi Luqmaan de moom dafa bàyyi woon doom ji ba màgg mu ne ko yaa bunayya laa tushrik billah waaye la tax mu sañ ko wax laa bi laa mooy ba muy nekk ku ndawe ba muy nekk lu tuuti fabutoon ay mbir yoo xam ne ñii naan bokkaale la ñi naan du bokkaale muy fab di def ci doom ja moom daa fexe woon ba doom ji nim nekkee woon ci biiru yaayam yàlla tabaaraka ko taala yor ko fa ba mu ñëwee àdduna it mu ne ko tawakkal ala allah ci yàlla rek waaw wakkilul rek subhanahu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku wéeru ci yàlla rek yàlla yoral la say mbir waaye bis boo wéeroo ci yeneen nag yeneen ya ngay wéeru dana tax ba tabaraka wa taala moom dalay bàyyee yooyee yonent yàlla muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi nee na wa man taallaqa bi cheyin wakila ilay képp ku laxasoo say mbir yàlla bàyyee laak ya nga ku takk say mbir moo xam loo ci jiblu tabaaraka wa taala bàyyil ak say mbir loolu ab hadis la boo xam ne bii yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax fa yàlla sori na amma yushrikuuna lañ koy bokkaaleel yàlla du moroomu ñiñ koy bokkaaleel yàlla du moroomu ñiñ koy bokkaaleel ay yushrikuuna ndax dañuy bokkaale maa loo xam ne laa yaxluqu du bind shay an dara wa hum te ñoom yooyu ñi bokkaale yuxlaquuna dañ leen bind maanaam li nga xam ne mooy li nit ñi daan jaamu muy ay xërëm ak yeneen ndax dañuy fekk loo xam ne moom bindul dañ koo bind nes di fekke loo xam ne dañ koo bind bind la nga bàyyi yow ki la bind bind kee tey jaamu ki nga xam dañ ko bind niñ la bindee yàlla nee na loolu du am xel wala yastatiuuna te kat li ngeen di jaamu te du yàlla amut lahum ñeel leen nasran ndimbal wala anfusahum yansuruun mënuñoo dimbale seen bopp ku mënta dimbale sa bopp nag boo ñëwee bëgg mu dimbale la yàlla tabaraka wa taala nee na loolu du sotti xanaa ko doon wut sax ku lay dim kuy dimbale dangay dem ci ku mën a dimbale boppam waaye ku mënta dimbale boppam mënoo koo dimbale picc ma daay ñëw fekk morom ja di jooy mar mu ne moom dafa bëgg naan ci bëti morom ji tabarakalla xam nga loolu dana metti lool tabarakalla wa in tad'uuhum boo leen wooxee ñoom xërëm yi ilal huda jëme ci njub laa yattabicuukum duñu leen topp su ngeen leen wooxee jëme ci njub ay al asnaam laa tujibu illa isaa duciyat ila xayrin aw rashaad li annaha jamaadaat laa tujibu isaa duciyat ila xayr jamaadaat yi boo leen doon woo it ba déwén duñu la wuusi boo fi toggoon la gën a neex ngay woo ab bant naan ko kaa ñu añit bant bi lu yàgg-yàgg ba mu fekk la ci añ ba sawaaun aleykum moo yem ci ño yéen a daawtumuhum ndax woo ngeen leen am antum saamituun walla ngeen ne cell xërëm yi daal ngeen woo leen ak ngeen ñàkk leen woo ñooyam képp lii nag mooy jamono yi nga xam ne nit yi arab yi muy xurays ak ña ca ñoom ak ñeneen ña ña ngay jaamu ay bant ak ñoom seen yooyu yàlla tabaraka wa taala di wax ñoom ngir ñu bàyyi bant yi ñuy jaamu ngir ñu bàyyi xërëm yi ñuy jaamu ak yu demee nekk yooyu kon yàlla bu waxee ñooñee alxuraan ñëw tibb ko ba léegi indi ko mooy ñun tam day wax ni xanaa yéen moom wër leen a xalaat loolu inna allazina ñi nga xam ne na dañuy jaamu min duunillaahi lu dul yàlla loolee ñuy jaamu ibaadun ay jaam lañu am amsaalukum ni ngeen nekke ay jaam jaam lañu ñoom ni ngeen nekk ay jaam yéen loo xam ne jaam la ni nga nekke jaam nag di ko jaamu mooy gàtt xel danga war a jaamu ki leen bokk moom fadcuuhum woo leen leen fal yastajibu lakum nañ leen wuyu in kuntum saarixiina bu fekkee wax ngeen dëgg ne sañ ngeen leen jaamu na ngeen leen woo ndax dañ leen wuyu walla déet mu ne alahum arjulun loola ma ngay tàmbalee woone sikk gi ne ci ay xërëm alahum ndax ñoom xërëm yi am nañ arjulun ay tànk yamsuuna biha di ca dox déedéet xiram amuti tànk fu mu jëm boroom a koy gàddu sonn ca lool tabarkal am lahum aydin wala xiram dafa am ay loxo yabatu suune bihaa di ca téye déedéet xiram amuti loxo mun munti téye dara danaan ya sax fi mu taxaw rek am lahum ayunun yubsiruuna bihaa am lahum wala boog dañoo am ay bët yubsiruuna bihaa di ca gis déedéet xërëm amul bët yuy gis gaa yi ne daañu ko defal ay bët mu ne bokk boqaaral waaye bët ba du gis dara tabaraka am lahum wala boog dañu am azanun ay nopp yasmauna biha di ci dégg déedéet xërëm nopp yi ñu koy defal danaan fiw rek waaye du dégg dara xawaas yooyu mu tuddal amu ci benn benn bu ci xërëm di am xul ne leen uduu shurakaakum woo leen ñi ngeen di bokkaale su ma kii duun ginnaaw ga ngeen fexeel ma fala tunsiruun te bu leen xaar dara bu leen xaar dara ngeen dal ñëw ngeen fexeel ma ma ànd ak xiram yi su boobaa bu ngeen jógee yéen ñépp yéen ak seeni xiram di ma fexeel yéen waa Màkka inna waliyallahu man ki nga xam ne mooy sama kilifa mooy yàlla sama féete mooy yàlla yàlla mi nga xam ne nazzala alkitaaba moo wàcc téere bi wa te moom yàlla yatawalla saalihiin moo féete woon ñu baax ñi mboolem ñi baax yàlla mooy seen kilifa ñi baaxut nag fu ñu xam jëm fa waaye tabaaraka wa mooy waliyu lazina amanu yuxriju min azulumaati ilal nuur ñi nga xam ne nag kafaroo moom yuxriju uh, awliyaahum taaxuut yuxrijunahum min annuuri ila zulumaat walladina ñi nga xam ne tadcuuna dañuy jaamu min yéen leen di jaamu min doon laay tudd yàlla laa yastatiicuuna nasrakum mënuñ leen dimbale wala anfusahum yansuruun mënuñoo dimbale seen bopp moo taxit àdduna si it fi ne jamono yii boo toppee ci ñeneen ñoo xam ne mënuluñ seen bopp dara nga bëgg ñu mën a la du sotti koo xam ne kii daa boot jotut nga ñëw ci ginnaaw bëgg mu boor lay da ngay sonn dong yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi yàlla ne ko xusi la afwa xusi la afwa loolu mooy makaarimul axlaax amara sallallahu alayhi wa sallam bi makaarimil axlaaq xusil afwa féete wóol jël jëllale jëlal jëllale lu la waaye mën a def jëlleel jëllale mooy nit ki soo xamee ne dalay jëw bul ko yëddu xusil afwa soo nekkee jàngalekat ngay dox ci mbedd mi ba séen sa élève di def lu ñuy tere élève da ngay jëlale bu la ko wax jàpp naa la ndax kon lu yàqu ci jikkoom yaa ko yàq ndax boo ne ko jàpp naa rek mu yëg koo fit mu far ni fit boo doon téléphoné benn waaye doon koo xam ne kii euh, téléphone daa bari nga xam ne léegi tey mu wax wax ju jubut soo sonee ba nga xam ne mi ngi bëgg a wuyu da ngay sori appareil ba ndax léeg-léeg am na ñoo xam ne bu ñuy wujji téléphone la ñuy tàmbalee xultu walaay ñi ñoo mën a woote xanaa duñu noppi su ko defee boo déggee baat yooyu day ñoq-ñoqal sa xol bi ni ngay def mooy xusul afwa mooy soo soo composé numéro bi ba yëg ne mi ngi sone waaj ñëw di ko jël si wala mu jël ko bay woo waaja muy woo bu tegee appareil bi ñaare da ngay dégg la ñuy wax ni ngay def yow mooy kon na appareil bi xaw a solo sam nopp tuuti ndax la ñuy wax moom ñoom doo ko dégg xusil afwa su ko defee it yow mi nekk sa kër léeg-léeg ñu lay booleeg soxna si wala ñu lay booleeg doom yi bul jóg nag sol saw dàll ñu luñ ñu ko seet fu ñuy jaar ndax nga xam nangam nangam wala ñu naa la diw day carte ngay topp ci ginnaaw di ko seet déedéet xusula afwa féetewul jéggale tabarkàlla lu bare bari la ci makaarimul axlaaq xusil afwa bu ñaaral bi mooy mu ne ko wamur bil urfi del digle njëkk al maaruf wal jamil mustahsin min al wal afaal del digle njëkk lépp loo xam ne lu baax la ku wax ak yow wax ko ko lépp loo xam ne lu baax la ku wax ak yow rek wax ko ab jullit lépp lu mu gis loo xam ne luy baaxal la na ko wax bu mu noppi ab jullit du ragal a wax moroomum jullitam ab jullit du ragal moroomum jullitam jànni ko soo gisee ku dul noonu dangay wax gone gu góor goo gis mu sulu bopp ba na nga daan ne ko ah sulu baaxut gone gu jigéen goo gis musóor wut nee ko ah, waaye am sa musóor gone gu jigéen goo gis waddu wut nee ko yow ana sab sir gone gu jigéen goo gis wala góor wóorut nee ko yow lu la tee wa mur bil urfi jig leen njëkk waxatuma laa nag ñi nga xam ne sëkkër la ñu nekk bu ñetteel bi wa aarid anil jaahiliin du mooyul ñi nga xam ne xamuñu la du mooyul ca doy laa tuqaabilu sufaha bi misli safahihim bal ahlum alayhim moo di ñi nga xam ne sufaha lañ sufaha mooy koo xam ne kii xel ma taxu koo mat xel ma taxu koo mat ndax doomu aadama ñi seen xel mat bokkuñu ni ñuy waxee ak ñi seen xel matut ñi seen xel mat bokkuñu ni ñuy jëflanteeg nit ñi ak ñi seen xel matut ci xelam matut moom moom day doon koo xam ne kii loo def ci moom mu xeeb ko noo ko nuyoo mu xeeb ko noo waxee ak moom mu xeeb ko te it day daal di jàpp ne moom dalaa daal di yilif su ko defee léeg-léeg ngeen nekk ci barab ngeen daal di wax mu wax la wax yoo xam ne ji ju safaanoo lay doon wala wax joo xam ne ji yow doo ko bëgg wala ci biir nit ñi wax la fa kàddu goo xam ne gii yow ci sa bopp da nga di sëgg ndax kàddu ga bëggoo ko woon dégg foofee tabarkal léeg leen nga toog ci biiru nit tabarkal la ne sogg am koo xam ne ci démb la la xamoon mu daal di ñëw bëgg laa wax waxi démb joojee yonent bi yàlla na ko waa arid anil jaahilin ñooñu nga xam ne ñooy def loolu na nga leen du mooy lu ko mooy rek da nga wax ñoom wax jula ñoo xam ne ji bëgguloo ko te ak bu jikko dina tax nit def loo xam ne lii du ko tey wa imma yanzaghannaka bu fekkee laal na la mina cheytaani ci cheytaane nazxun ak laal maanaam nga tarxiis bi fastaxis billaa làqul ca yàlla làqul ca yàlla làqu ci yàlla mooy nga ne auzu billahi min cheytaan rajim innahu ndaxte yàlla samiun aji dégg la bi nga ne ko làqu naa ci yow rek daat na lay dégg alim aji xam la la nga nekke ba bëgg a làqu ci moom ci mbirum seytaane ne nañu baadu salaf daf ci am koo xam ne ki def ma sa wax ab dongom ne ko bu la seytaane indilee ay moy nooy def mu ne ma jihaad ko mu ne ko su dellusee mu ne ah ma kër këri rek jiyaat ko mu ne ko su dellusee mu ne ah ma kër këri rek jiyaat ko mu ne ko loolu day yàgg xanaa gisoo su fekkoon dangaa romb ci ak jur xaj ba nga xam ne moo ne ca jur ga daal lay baw ndox sa diggante nga jéggi aw yoon nan ngay def mu ne damay song ak moom góorgóorlu mu ne ko déedéet ni ngay def mooy loolu day gudd dangay dem ca ginnaaw kalbu ba su ko defee soo ca làqutoo daal di raw suñu borom tabaraka wa taala mu ne bala seytaane tarxis looxee wala mu tiit loola na nga dem làqu ca ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala aouzu billahi min cheytaan rajim loolu lay tekki moo di maa ngi làqu ci yàlla ci cheytaan rajim ndax cheytaan rajim lu ay pexeem rëy rëy lu man di man fi lay bàyyi suñu borom tabaraka wa suñu borom nee na ko it sama jaam yi nga xam ne dañoo làqu ci man fi nga leen di bàyyi inna alladina ñi nga xam ne taxaw dañoo ragal yàlla subhanahu wa taala di moytu ay tereem di topp ay ndigalam ittasafu bi taqwa allah ñooñu isaa massahum bu leen laalee taaifun bu leen laalee taaifun benn jadd jàdd wala benn jax-jaxal mina sheytaane ci seytaane tazakkaru dañuy daal di fàttaliku dañuy daal fàttaliku mbugalum yàlla tabaraka wa fa isaahum ñoom ci saase rek mubsiruuna ñu daal ne jar daal di gis ne aha ñu daal di xam ne seytaane moo leen doon fexel yubsiruuna alxaqa bi nuuril basira wa yataqallasuuna min wasaawisi cheytaan mooy seytaane ki muy laal ko ne dëkk yow mooy koo xam ne laa yatazakkar koo xam ne yatazakkar day fàttaliku mbugalum yàlla mii dal nit ci bu ko seytaane laalee kooku du yàgg ca la ko seytaane teg seytaane mooy koo xam ne lépp lu naqari suñu borom tabaaraka taala mit ñi di ko def mën nga jóge ca seytaane waaye kuy xalaat ku nekk ya ngay nekk te yàlla di ko tere tabaaraka taala doo ca yàgg ndax seytaane ma nga xam ne moo la ci yóbbu boo xalaatee rek xam ne lii seytaane te lam la bëgg yóbbal mooy ëllëg di la yóbbu ci kër gu baaxul wa ixwaanuhum seen mbokk ya maanaam ixwaanu shayatin yamudduunahum ñoo leen di tëbb di leen dolli di leen gën a dugal fil xayi ci biir bew ga summa ginnaaw ga laa yoqsiruun duñu gàttañ lu dañ ciy dugg ci biir ba ci biir biir tabarkal laa yumassikuuna wala yakufuuna an ixwaihim wa isa lam tatihim bu leen andilut bi aayatin ci aaya wala boog wa isa lam tatihim boo leen andilut yow yonent bi bi aayatin ci kéemtaan boo indiwal mucjisa qaaloo ñu ne la law laj tabaytahaa lu teewoon nga keriyal mujisa sa bopp lu teewoon nga xereñe ko wut ko xul nee leen innama li fi nag attabiu damay topp rek ma yuuxaa ilayya liñ ma wax yu min rabbi mu jóge sama borom loolu rek la man nekkuma fi di jéem indi ay kéemtaan man li may def mooy li tabaaraka wa wàcce ci man loolu rekk lay topp haasa lii nag wax ji alxuraan mii saar wii di araf li ci romb ci ay njàngale yooyu yépp ay xam-xam la min rabbikum yu tukkee seen borom tabaraka wa taala ca yàlla tukkee moom xam-xam yi xujajun bayyinatun wa barahinu nayira nit ki nga xam ne daal judd ñu teg ko ci loxoy alquran mu jàng ko yaru ca màgg ca kooku day gëm alquran nekk ci nit ki nga xam ne daal judd moom jàng nañu ko alquran joxuñu ko ko tabarkalla dugal ko feneen jaar la ko feneen olof nee na waaja xañ na yàlla ngóor sa waaye bu ne ba ca kanam rek yàlla xañ na ngóor sa waaja ngay daal di dégg tabarkalla yàlla nee na wa isaa xuri alquraan boo déggatee ñuy jàng alquraan fastamiu na ngeen déglu lahu alquraan wa ansitu ngeen cellantu laallakum xëy na su ngeen ko dégloo te cellantu turxamuun yërëmees leen sooy dégg alquraan ñu koy jàng fastamiu lahu déglu leen ko déglu noppa koy def waa ansitu cellantu leen mooy bu kenn commentaire te alxuraan ja jeexut buñ koy firi na ñépp ne tekk buñ koy jàng na ñépp na tekk ndax kaset buy enregistré te yëngatul la muy enregistré du leer te doomu aadama ay cerveau mooy xalaat yi ne ci bopp bi loolu day enregistré moo tax soo dégg alxuraan da nga naan tekk saw yaram bàyyi sa sidit yi def ci sa xel mi def ci sa xol bi booleeg nopp yi lii dugg ci nopp yi mu koy enregistré di ko jaxaseeg sa deret ji lu too ko fàtte mukk saa boo ko ko fàttee tuuti boo téeni mu jël si waat li koy waral mooy fastamiu ko wa ansitu ñaari baat yi bokkut wa ansitu mooy da ngeen nan cell ñaare bu ñu dee def ibnum réew ibnu nation boobu réew da ngay dégg bu ñu ko tàmbalee nga gis nit ñi jóg taxaw ñëpp ne sat ni cell ña nga xam ne ñoo koy def rek ñoo koy def ak journaliste yi nga xam ne ñooy wane mbir ya ak di ko bind ñoom ñooy cambal ku dul ñii danga nga naan tekk ne sat ne cell rawatina bu gaay ne bu gaay ne une minute de silence tabarkàlla alxuraan nag yooyu yépp moo leen gën a rëy gën leen a màgg ya ñuy def te yooyu yu ko raw lañ ko war a defal moo tax alxuraan fab say kaset yu bari ak say kaseti musique bu bi jeex nga dugal bii boobu tamit alxuraan moom dafa bëgg bu ñu ko tàmbalee jàng alxuraan nee na wa isa xuri a soo déggatee ñuy jàng alxuraanu alxuraan fastamiu lahu na ngeen déglu ngir alxuraan wa ansitu ngeen cellante ko laallakum xay na yéen turxamuuna yërëmees leen safaan ba nag safaan ba rek la su ngeen ko dégluwut cellantuwu leen aa ah, safaan bu mooy am waskur rabbaka fàttalikul sa boroom del teewlu maggaayu yàlla subhanahu wa taala fii nafsika ci sam xel foo toll del yàlla tabaraka fii nafsika sam xel su ko defee yow foo mën di toll ak ragal yàlla dalay dalay gën di yokk bu ñépp doon dox ci dëkk bi nga dox ba mu yàgg nga fekk fukki junni tax tege nga gis ci ki mu rote yàlla tabaaraka taala mi ngi lay xool bi muy rote ci waa ji mi ngi koy xool nga for ko ndànk def ci sa poche mbaa nga teg ci sa tànk ba mu weesu ah am na beneen bët boo xam ne moom mi ngi lay xool bis bu ñu la dencee si biir bàmmeel mu ne la waaye yow cinquante mille jàmbur yaratoon nga teg sa loxo nag su boobaa si biir bàmmeel mënu fa yor cinquante mille moo tax jullit day fàttaliku boromam ci am xelam su ko defee dana ko génn ci ay moy moo tax ngeen dégg Alxuraan naan inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar waaye ne la wala zikrullahi akbar julli day tee def lu jubadi julli day tee def lu yàllay tere waaye zikrullahi muy fàttaliku yàlla ci si biir xol moom ni mu ko mëne moo raw ñu ko julli mëne taxul nag mu la bàyyil julli tey def loolu déedéet ndax julli mooy dem bu yóbbu la ci étape boobu waaye étape bu zikar dem bu yóbbu la ci étape bu julli déedéet julli moo la mën a jël ba yóbbu la foofu waaye lii mënu laa jël ba yóbbu la fa julli moo tax fokk julli waskur rabbaka fi nafsika tadarruan teg ko ci toroxlu yàlla dañ koy toroxlul mu mutadarrian ilayhi wa xiifatan ak it nag suufeel ko wa xiifatan wa duunal bañ koo biral minal xawli ciy wax bul biral di wax ca kaw a kaw a kaw waaye danga koy def mu dugg doomu baynal jahri wa sirri wala wa xiifatan ak ragal wa dunal jahri bañ koo biral minal xawli bil xudu wi ngay sikkar yàlla ci suba wa sirri wala wa xiifatan ak ragal wa dunal jahri bañ koo biral minal xawli bil xuduwi ngay sikkar yàlla ci suba wala ashiyi wala wal aasaali ak ci ngoon yi wala takun bul bokk min al gaafilin ci ñi sàggan koo xam ne kii xëy nga zikkar fàttaliku woo yàlla ba bis bi jeex fàttalikoo ko yaa ngi bokk ci alxaafil na ñi sàggan ab julit day bàkk yàlla su xëyee su ngoonee mu bàkk yàlla tabaraka wa taala lu ko mooy mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo sàggan inna allazina ñi nga xam ne inda rabbika ña nga fa sa borom ñoom day laa yastakbiruuna duñu réeréylu ñoo ñaay malaaka ya inna allazina gaa ya nga xam ne inda rabbika ña nga fa sa borom muy almalaaikatul athaar ñoom day laa yastakbiruun duñu réy réylu an ibaadatihi ci jaamu yàlla wa yusabbihuunahu dañuy sabbal yàlla walahu yasjuduun moom rekk la ñuy sujootal ñoom laa yasjuduuna illa lillah du ñu sujjootal kenn ko dul tabaraka wa foofu la tafsiru suratul araf yam ci ndimbalu suñu borom tabaraka wa ñoo ngi ci suñ juróom-ñetteelu saar muy suratul anfaal màkka la wàcc wàcc ginnaaw bi suratu baqara wàccee ngeen baal ma madina la wàcc wàcc ginnaaw bi suuratu baqara wàccee nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom kon daa mel ni saar yi nekkoon téeméer téeméer ñoom ñu ngi leen di bëgg a jeexal walla boog jeexal lañ leen commencé dugg ci yeneen saar yoo xam ne ñoom du ñu mat ay téeméer ndax saar bii nga xam ne moom la ñu génn muy lan faal ñaari muy aaraaf ñaari téeméeri aaya la ak juróom benn kon ay aayam bëri na kii nag nekk moom juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suratul anfal suratul anfal madina la wàcc saar bu wàcc madina wàllu sharia lay jàngale rawatina nag moom saar bii li muy jàngale mi ngi jëm ci alxazawaat muy guerre yi am ci lislaam ak jihaad fi sabilillah moom saar bi jàngale na lu jëm ci wàllu guerre bi nga xam ne dafa feeñ ci lenn ci guerre yi te nu bari ci wàllu sharia islamiya ci li mu tëral ci guerre saar bi jàngale na ko ak yenn jubbanti yoo xam ne suñu boroom tabaaraka wa taala moo ko jubbanti jullit yi te ñu war koo topp boo xamee ne nekk nañ ci ab xeex di xeex ak nooni yàlla yi subhanahu wa taala saar bi jàngale na wàllu jàmmoo ak wàllu xeex ak ña nga xam ne ñoom la ñuy jële ca xeex ba ñu nekk ay jaam wala ay ñu ñu takk yeew indi walla koom ma fay jóge ñu ngi wàcc moom saar bi ci ginnaaw bi ñu xeexee xaswatu badar xaswatu badar bi nga xam ne mooy xeex bi njëkk am ci taarixul islaam xaswatu badar di xeex bi nga xam ne ci la jundu rahmaan njëkk a songoog jundu sheytaan jundu rahmaan daan jundu sheytaan nga xam ne saxaaba yi am na ci ñoom ñoo xam ne sóoratul anfaal ñun ñu ngi ko tuddee sóoratu badar ndax am na ci saar bi ay tomb yoo xam ne jël na ko ci xaswatu badar rëddal leen ay plan yoo xam ne yu mu teqantal la ngir xeex leeralal leen yi nga xam ne war na ci ab jullit cig njàmbaar mu def ko akuk dëgër ak taxawaay boo xam ne jullit war na koo taxaw ci kanam ñi nga xam ne ñooy ñu sàggan ñi taxawee ko gépp njàmbaar jullit du dellu ginnaaw dafay nekk sumuut day am sumuut ak xasm bokk na ci taarixul gazawaat ni ñu ko xamee yi nga xam ne muslim moo ni xuus nañu ko moo di xaswatu badar dafa nekkoon ci weeru koor ca atum ñaareel ma ca gàddaay ga te mooy jawle bi nga xam ne moom la dëgg njëkk a def jawla moom caaxaan ci bi ñu yónnee salawaatullahi wasalaamu alayhi daal di jañ li nga xam ne moo di daw ak juba di jëmale ko ginnaaw ngir sowe ñi nga xam ne mooy ñu néewoon doole ñu leen doon noggatu min arrijaali wan nisaai wal wildaan mu di góor ñi jigéen ñi xale yi ñu ngi ci daan néewal doole keroog ba xaswa ba ñëwee ci lañ leen tàmbalee wet te mooy ñi nga xam ne ñoo toogoon ca makkatal mukarram doon toroxlu yàlla tabaraka wa taala di ko ñaan mu génnee leen ci dëkk bii nga xam ne dafa tooñ boromam subhanahu wa yàlla nangu leen seen ñaan googee ak seen toroxlu googee mu dal leen di waajalal nag lu leen ca génn ca xeex boobee muy xeex boo xam ne nga ñaay la jullit yee ko moom ak seen lim muy tuuti tuuti ak seen waajaay wa ak ngànnaay muy tuuti tuuti ak waajal ga ni nga xamee ne nun la gaawe looloo tax ci lañu xame jàmbaar ya ci la ñu xamee saxaaba ya ci la lislaam dooleem feeñe ci la taxawale tàllal li nga xam ne moo di ak buumam nga xam ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nun la ko rëdde woon ànd ak jullit yi ndax jullit yi ànd ak moom looloo tax ba xaswatu badrin nga ñaay la jullit ja moom ko waaye daw ga nag musirikoona yaa ko moom ci biir saar bi wane na fi lenn ci xew-xewi badar waaye dikk na ci biir saar bi annidaahul ilaahi wooteeb suñu borom tabaaraka wa taala bu muy woo jullit ci saar bi juróom benn yoon bi wasfil imaan yàlla woo na leen leen yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñi nga xam ne woote boobu moo di yàlla wooxut ñépp waxul naa naasu tey yaayoo la si ne amunu la wax mooy ñu melawoo noonu boo fekkee tey benn équipe nationale ñuy woo joueurs yi ñu jëm ca léeg-léeg ñu woote ay yoon doo dégg sama tur ñu woo ma ndax xam nañ ne man mii mbirum football moom mënuma ci dara man ba ma dalee dégg équipe nationale di woote ba léegi moom musuma woo lu tax mosuma woo mooy dama melowoowut ni joueurs yi mel ndax mënuma lañu man sawarewuma nañ saware feneen lañ may woo yàlla it su ne yaa ayu lazina amanu daa am ñum woo bu ne yaa yoon naa ñépp la woo moo tax yaa ayu lazina amanu ku ko dégg ku nekk bu la fekkoon ngay dox taxawal bu la fekkoon nga tëdd jógal toog bu la fekkoon nga yor pot di naan téyel pot ba bu fekkoon nga yor kudd yu lekk tegal kudd gën a tekk yaayu la na amunu ju nekk foofu la la war a dekk fekk woote bu njëkk bi yàlla def ni yaa ayu na amunu ba mu wootee lu tax muy woote mooy wax nit ñi ne leen daw ci xeex moom bëgguma ko mukk isa laqaytum allazina kafaru saxfan fala tuwaluhumul adbaar bu kenn wane ginnaaw bu kenn wane ginnaaw bu xeex amee ak lu noon yi bari bari doole bu kenn wane ginnaaw ñaareelu woote bi mu woo leen ci ndigal dégg ak jëfe ndigalu yàlla ndigalu yonent bi salawaatullahi salaamu aley assamu wa taa rek yaa ayu lazina amanu atiu llaha wa rasulahu wala tawallaw antum tasmaun noonu la wone aayay kéefar yi nga xam ne dañoo fakk jëf ci lan am yi nga xam ne duñu dégg duñu faggu duñu wuyu ab woote ñoom bay mu yooyu wa ama ni daawu thalis ñetteelu woote bi ci la yàlla tabaraka wa taala leerale li nga xam ne moom lañ lay woote jëme ca salawaatullahi wa salaamu alayhi ne li leen yonent bi di woo jëme ci la seen dund nekk ci la seen tedd nga nekk ci la seen texi àdduna nekk ci la seen texeg àllaaxira nekk yaa ayyuha lazina amanu stajibu lillahi wa li rasul isa daakum lima yuhyikum ee yéen ñi gëm wuy ji leen yàlla akub yónentam ndax li leen di woo mooy li leen di dundal ndax li leen yónent bi di woo mooy li mu dundal waaye boo wax bul wax ne su fekkee lañ leen di woo bul wax isa su fekkee ñeenteelu woote bi yàlla tabaaraka wa taala bi mu waxee julli ci leen xamal ne leen feeñal sekkerey xeet wii di lislaam yépp ko nooni yàlla yi loolu wor yàlla la wor yonent bi la wor xeetu islaam la ba tey yaa si allazina aamanu laa taxuunu allaha wa rasul wa taxuunu amaanaatikum wa antum taalamuun yéen ñi gëm yàlla bu leen wor yàlla bu leen war yonent bi su boobaa dangeen di war seen kóolute juróomeelu woote bi bi ko yàlla wootee subhanahu wa taala ci la walbatee xooli nu gaañi jëme leen ci lu di jàngal meññitum ragal yàlla mu fàttali leen li nga xam ne mooy fondement jëf ju baax fondement wu yiw la koy indi mooy ak taqwa ragal yàlla li nga xam ne nag mooy li gën a rëy ci meññitum ragal yàlla tabaraka wa taala mooy anuuru rabbaani bi nga xam ne yàlla tabaraka wa moo koy sànni ci xolu ku ko gëm te leer googu ci la yàlla yi taqalee diggante njub ak jubadi ci la yàlla yi taqalee diggante arusdu wal xay waaye ci lay taqalee diggante alhuda wa dalal yaa ayyuha allazina amanu in tattaqu allaha yajcal lakum furqaana wa yukaffir ankum sayiaatikum wa yaxfir lakum wallahu dul fadlil azim juróom benn la woote bi te mooy woote bi saar bi mujj woote ci la yàlla leerale tabaraka wa taala yoonu tedd nga ak fondement ndimbal la koy waral mooy rek sax rekk dëgër ci kanam noonu yàlla yi ndax amul benn noonu yàlla bu ñemee dee waaye amul benn jullit bu ragal a dee ndax dee du gàcce ci jullit liy gàcce ci jullit mooy daw bisub xeex wala war a deeti deewoo loolu mooy gàcce ak jullit ak itam teewlu màggaayu yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne moom amul fu muy yem ak kàttanu suñu borom tabaaraka taala bi nga xam ne mëni su koo not ak ñëpp ci tàllal gi nga xam ne suñu borom tabaaraka taala tàllal na ko li nga xam ne moo di buumam digle ñu bañ koo moy fenn yaa ayu lazina amanu ida laqitum fiatan fasbutu waskurullaha kasiran laalakum tuflihun yéen ñi gëm yàlla su ngeen dajee teeg mbooloo moo xam ne dañoo weddi yàlla na ngeen dér te bàkk ma man yàlla tabaraka wa taala bu ko defee ngeen gañe gañe noonu la saar bi tëje nag leeral al wilaaya al kaamila muy kilifteef walla péete bu mag bi nga xam ne dafa war a nekk ci diggante jullit yi ak itam xamal ne lu mu sori sori sori seen kër yi lu ñu soree soree sore lu ñu wuute wuute ay xeet ñoom umma waaxida rekk lañ bu ñuy dëkkee ca Kilikoro ñu dëkk dakaar lu ñu soree soree soree umma waaxida wenn xeet lañ te it xeet wi fu ñu mën a nekk suñ sakkoo ci ñoom ndimbal rekk dañoo war a jóg ñoom dimbale leen ab jullit fu mu moroom war a nekk def leen war a dimbale ni nga xamee ne al kufru milla waaxida mu di ñu weddi yàlla ñépp ñoo bokk ay bëgg-bëgg ñi wedd yàlla ñoom joxante nañu loxo ñoom ñépp ànd fas yéene yàq li fi yonent bi indi woon ñi nangul yàlla nag ñoo ñoo joxanteegut ay loxo mu daldi leeral kéefar yi nga xam ne ñoom ñooy féete woonte nga xam ne seen péete googu mooy fondement hu mooy fondement hu jàdd yoon ak itam diggante jullit yi ak yéefar yi warta am nag ak lëngoo warta am ak xaritoo والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة ardi الأرض وفساد كبير mu ne ñi nga xam ne ay yéeféer la ñuy weddi yàlla lenn ci ñoom ñoom méngoo ña ca des xaritoog ñoom mu ne na ngeen def ñeekoon xaritoo fii ñuy xaritoo fii su ngeen ko deful fitnaay ne ci suuf si ak yàq goo xam ne gi yàq gure la nii la saar bi tënkee lii la saar bi joxoñ ci ay jubluwaayam mooy ay ahdaafam ak jëmi ci ay ibar ay leçon yoo xam ne yu rëy la ay waaraate yoo xam ne tabarkalla yu am solo la ñuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu def ñun ñi nga xam ne dañuy dégg saar bi fi mu tàmbalee ba fi mu jeexe soo ko dee seet kon te bañ tàmbalee di jàng ak léegi jaar nañ fi ci saar yoo xam ne màkka la ñu wàcc ak saar yoo xam ne madina la ñu wàcc saar yi wàcc makka gën a bari saar yi wàcc madina ndax saar yi wàcc li ñuy def dafa gën a jafe saar yi wàcc madina yow mi may déglu fi mu ne boo dégloo saaru wàcc madina ci ngay xamee ndax yow gàddaay ga jóge makka ñëw madina wala ba léegi yaa nga makka wala déet bu fekkee ne saar bii ma dugg muy wax ne nangam lañu war a def nangam lañu war a bàyyi li mu ne bàyyi leen ko yaa ngi koy bàyyi su boobaa yow yaa ngi nekk madina ànd ak saxaaba yi yaag salawaatullahi wa salaamu alayhi bu fekkee li saar biy tere nag bàyyiwuloo ko xanaa yow la muy tere yaa nga ca la muy digle defoo ko su boobaa yaa nga ca màkkatal mukarram nekk faak ña nga xam ne ñoo fa nekk ñëwagoo fii nga xam ne mooy la almadinatul munawwara bi nga xam ne ci la yonent bi nekk su ko defee kon incha allah daje bii di ñëw ci la ñuy tàmbaleeg yi